ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو سعى ربنا لأنزل ملائكة لأنزل ملائكة فإنا بما أرسل ينتصرون صدق الله العظيم jërëjëf da koy jàngale ci turu si daara mën naa ko waxee noonu ndax bis bi kenn ko ne xam ne ci rendement Serigne Moussa si Moussa Sarr nag naa ne sëñ daara yëpp mën nañ ko teewal jotaay bu doon jëlul woon ñu ne njabootam sax su ko defee kon maam ndaag gàtt ko Mamdak Gakko moom moo jërëjëf Mamdak Gakko Serigne Aliou Gakko mooy waajuram mu góor ak soxna Mbeen Mbaw yaakaar naa noonu la war a doon asala asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ala baad minhum من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا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 يرزقهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم woote bisub alquran boo xam ne dañu ci rendre hommage Serigne Moussa Sarr tur woowu yaakaar na fu woote bi egg tur woowu egg na fa Serigne Moussa moomu nag xëy na baaxoo wunu di am bis di ko jox nit wala di ko ko tudde loolu bariwut lu ñu koy def sax waaye dafa am yëg-yëg bu rëy boo xam ne moom lañu ñu te yaakaar naa ne yëg-yëg boobu moo nekk ci mbooleem koo xam ne teew na ci barab bi tey te yëngu ci daara te xam sëriñ Moussa Sarr moomu yëg-yëg boobu moom nga amee xam naa dañu leen cee jiitu rek loo ko waral mooy dafa nekk koo xam ne dundam yépp da ko joxoon yàlla ci nangoo sonn ci jaame yàlla yi ñëpp nag waaye nag mu ràññee woon lool ci côté waa daara jëfam juré joojee mu doon jëf nag ba yàlla dogal mu wan ñu ginnaaw amuñu woon dara luñ ko daan mën a fayee ñun waa daara lu dul di ko ñaanal bi muy dund ngir mu gudd fan bu ñu wanee ginnaaw it ci jëfam jooju warutuñ ko fàtte ndax ku nekk ci nun rek am na fu la fekk muy jëf ju réy léegi maa ngi koy wax ne bu weeru koor masaana jot bu nee tey weer wi feeñ na mboolem fu ab sëriñ daara nekk ci ndakaaru sa xel mi ngi dem ci kër sëñ Moussa Sarr mu woo la téléphone mu bañ laa woo boo xëyee da nga waaxu jawali fa muy jëf ju rëy joo xam ne am na lu mu daan def di ko ànd ak jaamu yàlla bu baax di alaaj sëriñ Seck c 3 ñu di ko ànd muy jëf ju rafet yoo xam ne si kenn ci nun umpale wu ko ak leneen lu dul loolu dëkk fu mu toll ci sonnal waa alxuraan loolee nag ñun ñu am yëg-yëgu bis bi bi mu ñëwee ñu ne dañ ko koy delloo ngir defal ko omage ñu gis ne nag kon bis bi bu ñëwee du rek dañ koy def ci tur waaye bis bi jiitu bis bi muy démb di wax di bisu gaaw bi dañoo xëyee gonte jàng alxuraan ngir jagleel ko Serigne Moussa Sarr moom wàcce nañu démb juróom ñaar fukki kaam juróom benn fukki kaamil ak juróom ñeent yoo xam ne jàng nañ ko ci daara ji ci jigéen ñee góor ñi ngir lan ñaan suñ borom yool boobu yàlla nangu ko te jotal ko ci sunu mbokk moomu sëriñ musa saa ak mbooleem jullit bu mu fa fekk ak bu ko fa fekk loolee nag nangu gu mu nangoo woon sonnal alxuraan moo tax ñun ñu gis ne yow na ko ñu jagleel ko loolee ci kaw loolu nag moo tax luñ ko xam-xam wala luñ lu ñu defal defal gis nañ ñoo xam ne si fa mu jaar ak ñoom mu ëpp fi mu jaar ak ñoom luñ ko xamit ñoonu ko gën a xam ba tax na ci kaw loolu dañuy jox sunu waajur wii di sëriñ Cheikh Awa Balla Gueye moom mi nga xam ne ci kaddu njaboot gi njabootuk sëriñ Moussa saar gi fi teew ñoom ñëpp mooy wax ci seenu tur ngir wax nit ñi jaamu yàlla boobu ni mu doon sonne ci jaamu yàlla yi ak sonn ci ngir jaamu yàlla yi lan lay jariñ ñaax leen ci ba mu bañ a nekk rek loo xam ne dañ ko koy tudd rek waaye dañu ciy dolli ñun ñëpp dolleeku ci ngir mën a jaar ca jéegoom yooyee loolu moo tax ñu bëgg jox kàddu gi xam naa dañoo waxoon sax lu mu gàtt gàtt doomam sëriñ Mbàkke mi ngi fi di moom itam njabootam gépp mu sóob leen ci alxuraan ñëpp jàng alxuraan donte léegi nekkatut ci daara ji lu mu gàtt gàtt mu jàng donte ñaari aaya la sax ubbile ko imaam Serigne Cheikh Awa Balla Gueye kon Serigne Mbacke su fekkee mi ngi fi. macha allah ñëw def loolu. ما كان

هو الذي يصلي عليكم وملائكته وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام صدق الله العظيم sëriñ Moussa Sarr rahmatullahi alayhi ak njabootam te njabootam ñëpp a teew sëriñ Mbàkke mi doon jàng moo di ab taawam ñu ngi ànd ak mbooloo ay bokki daaraam sëriñ Gédé Guèye ànd ak seen baay sëriñ Ousmane Guèye ak sëriñ Fallou Seck di alaaji sëriñ sekk teew fi di leen gërëm di gërëm sëriñ daara bi nga xam ni moo bëggul turu Moussa Far ci alquran ba tax ma di ko fàttaliku bis bi ñuy fàttaliku alquran yal nañu ko yàlla fayal Moussa nag jëmm la joo xam ni boo koy melal ci gàttal mooy jëmm ju yàlla safoon la lépp lu yàlla amit loola saf ko amul woon jubluwaay alxuraan ak néew doole yi ñoo ko yitteeloon fu ko yittee néew ji doole fekk dana jéem pour faj ko bu dara nekkul ci poosam it dana ne ñokket taal otoom lu mu guddi guddi mu fëgg alaaj sëriñ sekk mi ni ko def ko te daawu ci teg baat moom itam noo koy sant bu baax a baax ci taxaw gi mu taxaw woon ñoo sëñ Moussa ñu daan def liggéey bi ci mbooleem daara yi yaakaar naa ni daara ju muy jël mooy ju mu xamul waaye ju mu xam rek dawee su ko jél ci liggéey bu rafet boobu noonu la bëggee woon nit ku yëngutu ci lu baax ku ne léeg-léeg sax am na ay jóg yoo xam ne bu ko daan def li nuy jigéen jigéen ñi ay kër dafa ma koy nëbbu ba dem ca ba ñëw ndax bu ma ko waxee dama koy gantal xamal ko ni ko wéroo kon nag am na yoo xam ne xew yoo xam ni nit ku wérul waru caa dem waaye bu loolu lu mel noonu masaa am da cay dem ba ñëw woo ma téléphone ni ma damaa demaan barab sàngam li ci mujj mooy sëriñ Mor Diop bu Ndar jamono boobu mu ngi tëdd waaye dafa dem ci dëj ba ba ñëw wax ma ko man ko ak ni nga mel ñi ma ngaa daw daw fii ci oto ba àgg ndar tey mu ne loola tax waxuma la ko woon kon yàlla da koo ñoroon lool lépp lu mu gis nit di ca yëngatu te muy lu jëm ci yàlla loolee dana ca def loxoom maa ngi fàttaliku benn bis ca jamonoy sëriñ Saalihu Mbàkke bi muy laaj lu jëm ci defaraat jumaa ji nu ànd maak moom di nuyu sëriñ Suhaybu Mbàkke fi nu toog di ko siyaare mu déy ma ni ma xanaa li may participer ci jumaa ji mën naa koo jox sëriñ bi man ko waa bu la neexee mu yëkkati ko jox ma ko muy lu limu ma tàllal ko sëriñ bu mu tàllal loxoom di bëgg a jël ma ni ko sëñ bii da koo def ci jumaay ji mu bankaat loxoom ni ma kon yëpp ko Abdou Lahad wala Maam Balla ca laay yëgee ni ñoom bu ñu tuddee dara yàlla waxuma la dencal ko yàlla waaye ñimewuñ koo laal ak seen loxo buñ ne ci jàkka ji la jëm duñ ko denc seen dencukaay loola la ma jàngal keroog nu sant ca yàlla bu baax nag ndax fekkul woon nuy doxee loolu euh, bi ñu ko joxee kamunu digal wax ko ni mu ko waxee daf ne ah waaw ndigal li day mooy nu it nu jël ko nii rek dem yëpp ko ki ñu koy jox waaye du nu jéem a xam li ci nekk ak ñaata la loolu may ñu ci ndigal euh, moo tax bi nu ñëwee tey ci daje bi mbég min ci am mënuñu koo wax ndax njàng mi am na fu mu nu yóbbu tuuti mënunoo wax mbég mi dëgg dëgg dëgg bokki Moussa daal gërëm na la xariti Moussa it gërëm nañu la ñoom ñëpp bég nañ ci bii liggéey ak giig fàttaliku xam nañ ni kon yàlla ngeen ànde woon du won njariñul àddina ndax koy ànd nit ngir njariñul àddina boo ko gisatul fàttaliku ko dakk kon nag bu ngeen koy fàttaliku ba léegi loolu bég nañ ci lool loolu dañoo bégloo ci mbir mii tey ma di ko wax ci kàddu suñ Ousmane mii nga xam ne moom it mooy léppi sëriñ Moussa moo ko wuti ci lépp manan ci moom lu ko neex di ca defit lu ko neex nun ñi ñëpp sëñ Moussa dafa ubbi woon këram sama daara sorewul ak këram waaye am naa dongo yu nga xam ni kër sëñ Moussa lañ daan fanaan yi foofa lañ daan fanaan dinaa ci joxe misaal daara ji tuddati turu jàngalekat bu mag ndax mooy kilifa gu bokk ca kilifa yu mag yi lu sëriñ daara yi def moom moo ko doon defal boppam bi ay xele màggee rek la leen séddale dongo yi kii yor lii kii yor lii di yaan yàlla yàlla defal leen ndam ci lii ngeen di liggéey muy alquran lu ñu war a def ci àddina bi ak lu ñu war a jàppale ci àddina bi lu mel nii lañ ko war a def baatare yi nit ñi baatare yépp ci àddina bi benn yellu ci ci fii rek lañu ñu war a di baatare benn yellu ci baatare ngir alquran taxaw moom rek a yell waaye baatare ngir seytaane rus ba wone ni bu amee ay gaay yu muy dajeel ca grand théâtre ñu di ko baatareel alxuraan it am nay gaayam kon nag dëgg-dëgg yelloon na jaadu na ñuy baatareel alquran ba gaa yi rus xam ne du ñoom rek moom nit ñi ñoom am nañ ñu baax ña dëgg-dëgg yal nañ yàlla bala defal tawfiix defal leen ko noo ngi sant ñëpp ko gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lii ñu tuddee dalilul mudir wal muallim muy téere boo xam ne tur yi moo moo ko moo ko moo ko jaay tur yi ci boppam mooy lii sëriñ daara di tegtaloo. ak ñi koy jàppale ci daara ji mooy jàngalekat yi téere bi nag rabitatul madarisil quraniya noo ko liggéey diirub ñaari at jàpp ñetti at rawatina faron Pikine bi nga xam ne seriñ Hassan Diop moo ko jiite ñu defan ko dédicace le treize bala weesu fële ci institut islamique mu doon téere boo xam ne daara rek ko tax a naka la daara di doxe lan mooy warteefu sëriñ daara bi ci bopp daara ji ci bopp daaraam nu nu muy doxee lan mooy warteefu ñi ñu jox xalqa yi mooy jàngalekat yi naka lan leen war a saytoo taqiim seenub liggéey ndax nit boo ko joxee ay dong mu doxal weer ñetti weer war naa xam fu mu tàmbalee fu mu yem naka la ñuy nattee dong bi ci am njàngam xel mu naqari la mu neex la mu diggu doomu la naka la waajur yi joxe seeni doom ci daara lan mooy seen warteef ci biir daara ji dong bi itam naka lañ koy ommatee ci am njàngam ba njàng mi set wecc gaaw te rafet te benn coono ci ji ñi nga xam ne itam ñoom la yàlla dogal ci daara ji mooy xodaam yi ñi fiy liggéey ak ñëpp lan mooy seen warteef ci daara ji seen diggante ak mudir bi loolu la téere bi tënk ak yeneen ñu di ko wecceekoo ñeenti téeméeri dërëm ñu bëgg sëñ daara yëpp jot ci mu yaatu fap fépp ci réew mi téere yaa ngi nii léegi ci leexool sëñ Omar kan incha allahu taala ñi ngi ñaan ñëpp jot ci jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا صديدا من لدن من لدنه ويبصر المؤمنين الذين يعملون الصالحات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 سلام على ياسين حبيب على ياسين حبيب على ياسين حبيب توصلنا ببسم وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لل بأهل البدر يا صلاة الله سلام صلاة الله سلام صلاة الله سلام صلاة